abonnez-vous qui sont sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen jàmm ay xibaar. dal leen ak jàmm seen seen bii di FTTV Sénégal Cristiano Alassane Sall yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci loi d'amnistie buñ na ma voté ci réew mii di Sénégal. Céline li ni mel Cristiano Alassane Sall ne kii le président Macky Sall ak régime xam nañ bu baax que ne ñaawte fi fi amal. si loolee dañ leen see indexé ci ay rapport OFNAC di ab corps de contrôle bu nekk si réew mi di Sénégal ne donc lépp luñ fi amal ci ñaawteef dañ koo documenté te ne li ni mel moom moo sabab kii di président Macky Sall ak régime dëkk ci njàqare ak tiit ci ku leen na ma ci réew mii di Sénégal ba fayloo leen ñaawteef yooyee ñu amal ci réew mii di Sénégal ne lu leer ba am moom mooy que ne askanu Sénégal duñ mës a baal président Macky Sall ak régime am si luñ fi amal ci ñaawteef. ginnaaw li ni mel kii di Thierno Alassane Sall daal di wóyal ne kii président Macky Sall ak gouvernement am benn bunt rek lañ mën a jaaree ngir ñaawteef yooyee ñu fi amal ñu daal di leen koy baal daal leen di si ragg bañ daal di set ne moom mooy bunt biñ dippee amnistie. ne projet de loi boobee rek moom moo mën a may kii président Macky Sall ak ñi mu àndal ci ñaawtee fi ñu fi amal yëpp ñu daal di leen koy baal. ne loolee moom moo sabab képp ku dem uyu kii di président Macky Sall ci dialogue national bu mu ci réew mi di Sénégal te foofee nga daal di nangu luñ dippee amnistie jëmale ko ci gouvernement wu kii président Macky Sall ne kookee buy amal li ni mel daa daal di trahir population sénégalaise bi. La dal di trahir la population sénégalaise bi dal di jëmmal yeneen intérêt loi d'amnistie kenn waru di Sénégal ne président Macky Sall sax ci dialogue national bu mu kenn waru ko cee uyu ndax kookee président abonnez-vous ci sunu Sénégal la des patriotes